ay juutikat ak ay boroom bàkkaar daan jigéen ci yeesu ngir déglu ko farisiyen ya ak xutbakat ya di ñurumtu naan waa ji mi ngi nangoo nekk ak ay boroom bàkkaar ak alekandoog ñoom noonu yeesu daldi leen wax léeb yi ne leen kan ci soo amoon téeméeri xar te benn réer ci nooy def ndax doo bàyyi ca parlukaay ba juróom ñeent fukki xar ya ak juróom ñeent toppi ma réer ba gis ko te boo ko gisee dinga ko gàddu ak bànneex yóbbu ko kër ga boo àggee ca kër ga dinga woo say xarit ak say dëkkandoo ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama xar ma réeroon maa ngi leen di wax lii ci noonule dina am mbég ci asamaan bu benn bàkkaarkat tuubee ay bàkkaaram te mbég moomu mooy ëpp mbég mi fay am ngir juróom ak juróom ñu te soxlawu ñoo seeni bàkkaar te bu jigéen dencoon fukki libidoor benn réer ca nu muy def ndax du taal ab làmp bale kër ga seet fu nekk ba gis ko bu ko gisee dina woo ay xaritam ak ay dëkkandoom ne leen kaay leen bànneexu ak man ndaxte gis naa sama alal ji maa ngi leen di wax lii ci noonu la malaaka yàlla yi di amee mbég ci benn bàkkaarkat bu tuub ay bàkkaaram yéesu dellu ne leen dafa amoon góor gu am ñaari doom benn bis caat ma ne baay ba baay dama bëggoon nga jox ma li may war a féetewoo ci ndono li noonu baay ba daldi leen seddale alalam ay fan yu néew ginnaaw gi caat ba fab yëfam yépp dem ca réew mu sori yàq fa alalam ci topp nafsoom bi mu sànkee alalam jépp xiif bu metti dal ca réew ma mu tàmbalee ñàkk mu dem nag di liggéeyal ku dëkk ca réew ma kooku yebal ko ca ay toolam ngir mu sàmm mbaam xuux ya mu xiif ba bëgg a lekk ca ñamu mbaam xuux ya ndaxte kenn mayu ko dara mujj xelam dellusi mu ne sama baay am na ay surga yu bari te dañuy lekk ba suur man nag maa ngi fii di bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ci sama baay ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeeyatumaa nekk sa doom boole ma ci say surga mu daldi jóg jëm kër baayam waaye bu muy sorandi kër ga baayam seen ko yërëm ko daldi daw laxasu ko fóon ko doom ja ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeyeetumaa nekk sa doom waaye baay ba na ay surgaam gaaw leen indi mbubb mi gëna rafet solal ko ko te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dàll indileen sa luwu duufa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbalee bànneexu fekk booba taaw baa nga woon ca tool ya bi mu ñewee ba jub kër ga mu dégg ñuy tëgg di fecc mu daldi woo kenn ca surga ya nag laaj ko lu xew mu tontu ko sa rakk moo dellusi te sa baay rey na sa luwu duuf wa ndaxte ñibbisi na ci jàmm ci kaw loolu taw ba daldi mer baña dugg ca kër ga baayam daldi génn ngir ñaan ko mu dugg waaye taaw ba tontu baayam ne ko seetal ñaata at laa la mel ni jàmm te musuma mooy sa ndigal waaye yow musuloo ma may sax teef ngir ma bànneexu man ak samay xarit waaye bi sa doom ji dikkee moom mi yàq sa alal ci ndoxaan reyal nga ko sa luwu duuf wi noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te li ma am lépp yaa ko moom waaye war na noo bànneexu te bég ndaxte sa rakk ji dafa deewoon te dundaat na dafa reeroon te feeñ na